association boulanger yi nekk ci Touba ci fête premier mai bi ñu amal doxu ñaxtu dox boo xamante ni ñu ngi yëkkati seeni pancarte ñu ciy fësal seeni jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci seen liggéey bokk na ci ñàkk contrat ak ay ak caisse de sécurité sociale bi nga xam ne duñ leen ko verseel mbooleem seen jafe-jafe yi fësal nañ ko ci kanamu sous-préfet bu Ndam. di ko wax situation yi ñuy dund boulanger yi Touba Mbacké yi ñoom dañu ba léegi am na deux 218 fours yu fi nekk fii biir su ñu xoolee nekk na ci deux mille ouvriers yoo xam ne ñoo ngi fiy liggéey mais conditions yi ñuy liggéeyee baaxul ndax amuñu embauchement amuñu contrat amuñu bulletin de salaire amuñu caisse sécurité sociale amuñu congé amuñu repos kenn versé lu leen IPRES ñu wax nag préfet mu waxal ñu état mu mu mu xool conditions yi travailleurs yi boulanger Touba yi di dundu mu réglé situation bi ndax conditions yi kenn déclaré wul bu blancé yi dëkkee te liggéey ñu qualité amul hygiène mais ouvrier yi ñu ngi koy wax ne ko mu waxal ñu état mu defal ñu formation professionnelle boole ci ak loo xam ne finance dimbali ñu ci finance. Mamadou Mansour Diallo sous-préfet bu Ndam daal di nay jot mémorandum bi nga xam ne boulanger yi Touba yi jox nañ ko ko moom nag muy xamal ne mboolem ñi nga xam ne moom la ñuy ñaxtu lu jaadu la te dana jébbal mémorandum bi ay kilifaam. ngeen ñëw jébbal ma seen mémorandum bi muy doon li nga xam ne bi. taataan ngeen si lépp li nga xaman ni bii ay ay ay ay manquement la n'est-ce pas ay ay ay ay ay wareef yi nga xaman ni bii yu lu ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo leen war a euh, ñoo leen embauché te euh, wax dëgg yàlla euh, jaarul yoon ba léegi wax dëgg yàlla war ngeen leen war ngeen organiser wu laaj tamit seen i sañ-sañ te loolu yaakaar naa ni daañu leen si jàppale. jafe-jafe yi nga xam ne nag boulanger yu nekkee ci Touba moom la ñuy jànkoonteel kenn ci ñi leen di liggéeyloo. nee na lu ñu war a saafara la. lii ñaxtu ànd naa ci ndax 2008 euh, 2008 euh, bi toolu américain yi yàqoo farine bi yokku na ba vingt et un mille francs ma koy jënd vingt et un mille di liggéey mburu mi fanweeri dërëm kon bu ñu demee ba jamono bii ñu bëgg nañ yokk mburu bi ndax nangam ndax treize mille douze mille loolu teguñu ko fenn ñoo ñu di wax loolu seen bopp lañu nekkal man li ñu xale yi def nii ànd naa maay jëkk a wu fisc yi ma war a fay yëpp ma fay ko li ma war a jox état ma jox ko ndax nit ku patriote ku bëgg dëkkam ak ak yelleef da koy fay réewam. association boulanger yu Touba yi jeexalee seen doxum ñaxtu bi ak mbégte te di rafet njortu ne seeni jafe-jafe ñu ko saafara.